قال سيدي العلامة العارف بالله الشيخ سيدي محمد بن محمد بن الحسن بن عبد الله الشناي الفاز التجاني رضي الله تعالى عنه في إلحاف الخل وفي شرح أحفاد الحزب السيفي الإسناد المتصل من أول الكتاب إليه والصبور فعول من الصبر وهو في اللغة حبس النفس وتوطينها على المكاره والمشاق ومعناه الذي لا يستعجل في مؤاخذة في مؤاخذة العصاة ومعاقبة المذنبين إلى آخره kon ñu yemoon ci maanaam ci xisbu sayfi bi yaa gafuur yaa shakuur yaa xalimu yaa karimu yaa sabuuru yaa raximu léegi kon gis nañu gafuur shakuur xalimu karimu sabuuru ci lañ ne voilà léegi mu ne wax sabuuru sabuur mooy muñaakoon bi faulun kon jëfaakoon la maanaam mooy faul ism maanaam mubaalaxa la ci kon mm-hmm. forme verbale bi jëfaakoon bi wax ni jëfaakoon la boo xam ne mina sabr mi ngi jóge ci muñ ci muñ maanaam mooy ku mën ku jéggi dayo ci ni muy anam bi gën a kawe ci ni muy muñe woowu te moom fi luxati ci luxa làkk arab muñ ko waxee maanaam muñ mooy lan lan mooy muñ mooy xabsu nafs mooy téye xabsu téye téye bi tekki bi tekki xañ bi tekki xañ dara voilà maanaam dans le sens où dañ ko comme dañ ko tëj comme comme kaso loolu la xam si la ñu wax maanaam ku ñu tëj fenn waaw ñu téye ko fenn daal xañ ko mu génn voilà maanaam obligé ko bu doon nga obligé kon obligé bi ñu obligé ci téye bi ñu téye bakkan wa tawtiniha ak di ko euh, di ko wàccaal di ko la di ko dëkkale maanaam di ko tàmmal alal maanaam mu mën a tàmm dëkkee alal makaari yi ci yi nga xamante ne dëkkuy sib ay yu bakkan di sib la wal ma mashaq ak yi nga xamante ne ay xat-xat la ko yi nga xam ne dañ koy sib maanaam mooy yi nga xamante ne gënut ak yi nga xam ne dañoo xat ay contraint dañoo contraignant voilà maanaam bakkan bi téye gi nga koy téye ci yooya maanaam nga di ko forcer ci muy nangu li nga xamante ne ak di ko tàmmal li nga xamante ne moom mooy yi nga xamante ne néexu ko ak yi nga xamante ne dafa xat loolu moom moom la ñu wax muñ muñ muñ la waaw <laughs> boo gisee moo tax euh, arab ak wolof bokk nañ ci làkk yi gën a yi gën euh, yi gën a yaatu ci ni ñuy définir baatu muñ hmm. ci ni ñu ci li ñu ci ci ci ci ci maanaam ci niñ ko defar defe ndax hmm, boo xoolee comme langue tu comme par exemple tubaab bi ñoom amuñu benn baat kese buy tekki muñ amuñu ko voilà baat baat yu bari lañ am <laughs> mais amuñu baat buy tekki muñ voilà <laughs> ah. voilà abu jabbar buy tekki dëgg-dëgg muñ voilà dañu am endurance endurance benn façon muñ la mooy le fait que ngay euh, euh, façon muñ la mooy le fait euh, mbir mi di yàgg nga voilà nga mën a nekk ci benn mbir jamono ju yàgg nga mën cee nekk jamono ju yàgg voilà loolu mooy endurance bi dañuy wax patience boobu tamit benn xeet la ci façon mu ñuy kese benn rek la ci moom mooy euh, mooy ngay négandiku di xaar dara yëkkatiku wala di xaar dara xew voilà mooy patience dañuy wax tamit la mooy mooy euh, supporter mu mm. supporter maanaam mooy boobu tam benn façon la ci affaire muñ mooy dara dal la nga téye ko nga nga ba nga nga nga nangu loola yooyu Euh, la trappe, patience endurance hein, patienter endurer supporter hein? <laughs> mais mais y a façon façon mais général donc selon selon selon ci ngay waxe ne il supporte nangam wala boog il endure wala boog nga ne il patiente waaw ci ngay duggalee ah waaw le fait de supporter wala l'endurance wala la patience waaw alors que olof ak arab am nañ loolu sabru muñ waaw nga nu ko wax muñ rek affaire bi dugg lu baree bari dugg ci biir <laughs> voilà mu mën a làmboo lu baree bari voilà mais loolu yii mu yi ñuy wax mooy côté làkk bi loolu mooy côté làkk bi voilà donc dans les mu ci biir nit dafa am yu yu yu yu yu muy wute te yooyu dinañ ci ñëw insha allahu taala maanaam xeeti mu ñu dinañ ci ñëw insha allah bu ñu paree ci voilà mu ne wa maanaam maanaam allazi mooy nga xam ne laa stadiru du yàkkamte fii mu axasati ci di al-usaati mooy kat yi wal mu'aaqabati ak di mbugal al-muznibiina bàkkaarkat voilà kon kooku mooy yàlla kon mooy ki nga xam ne buñ ne mooy sabuur mu ñaakoon mooy ki nga xam ne du yàkkamti du njëkkantu ci ku def bàkkaar rek ku ku mooy yàlla rek mu dem mu téye la jàpp la wala boog muy eh, eh, mbugal ñi nga xamante ne ñoom ñooy bàkkaarkat yi voilà maanaam mu'aaqaba mooy mbugal moom di tekki eh, punition voilà léegi kon euh, lii tamit euh, dafa dafa xaw a nuru maanaam xale bi mhm. dénnoor lu bi dina nuru donc voilà comme niñ ko luñ ci waxoon waqi la waxe ne huwa mooy alladi nga xamante ne laa tax zuno du ko tiisal du ko tiisal kasaratu barik al maasi yi moy yi xataa mbede to at bi mu yóbbee ko ila taajili ci gaawe al aqubati bugal voilà loolu tamit nee nañ mooy maanaa maanaa bokk na ci maanaa yi kon maanaa sabuur mooy yàlla mi nga xamante ne ah, ah, bari bi bàkkaar yi maanaam bari du ko indil benn tristesse du ko attristé ba tax mu ne xaaral ma gaaw def ma xaaral ñii daal xaaral ma jóg seen kaw teg leen dara déedéet waqiila wax nañ ne huwa mooy alladi ki nga xamante ne iza qabalatu ah, iza qaabaltahu boo ñëwee dëgmal ko bil jafaa ci becc ci ci ci ci ci ci euh, ñàkk xorma ci ñàkk xorma moom dana la dëgmal bil atiya ci yulli ci jox la wal ak matal kóllëre waa iza aradta boo dummoo yow aduhu wallif ko dina istiyaani ci mooy ko aqbala mu dëgmal alayka ci yow bil ghufraan ci njéggal gu sëkk lii moom mooy wax nañ ne moom mooy saburu kon loolu tam beneen maanaa la ci maanaay borom subhaanahu wa ta'aala la fekk nekk mu ñaakoon mooy ki nga xamante ne soo dëgg soo dëgmalee ci moom ci ci xeetu ñàkk xorma moom mu ñëw dëgmal ci dëgmal ci yow ci jox la ak matal la matal la li mu lay jox ak voilà ak matal kóllëre sa diggante moom waaye su fekkente ne dangaa dummóoyu wëllif ko danga koo dummóoyu ci moy gi nga koy moy moom mu dëgmal la ci jéggal rëy gi nga xam ne moom lay dégg jéggal xaala wax na baadal aarif yi na leen ci aarif billaahi ñeen ci nandite yi nee na as-sabru muñ anwaa'un ay xeet la sabrun muñ ala taa'ati ci topp yàlla wa sabrun ak muñ anil ma'siyati wallif mooy yàlla wa huma ñaar yi nag asaasu ñoom ñooy e, ndëgërlaayu ñooy cosaanu ñooy cosaanu maanaam ñoom ñooy fondement wu tariq al istiqaamati ngay coow wooral maanaam yoonu jub xoj tegu ci yoon bi ñaari xeet la maanaam ñaari façon muñ yi mooy muñ ci di topp yàlla ak muñ ci mooy yàlla euh, loolu lu ma tabaay xel la maanaam euh, dina wax yeneen xeet beneen yeneen xeet yi mais wala beneen bi euh, mais muñ ci topp yàlla walla wala yeneen yi muñ ci topp yàlla ak mu muñ ci bàyyi mooy yàlla maanaam ci bàyyi li nga xamante ne moom mooy mooy yàlla ñaar yooyu ñoom ñooy fondement wu yoonu yàlla ñoom képp koo xamante ne danga topp li yàlla bëgg euh, maanaam euh, li tax li tax bii xeetu muñ gën a gën ëpp doole bi wii ñoo ëpp doole yeneen muñ yi yëpp yëpp yëpp muñ yëpp bii moo ci ëpp doole moo tax kooku moom mooy muñkat bi moo tax euh, euh, xadiis bi wax dinaan euh, as as sawmu lii wa ana ajzi bihi koor man maa ko moom maa koy fayal bopp boo xoolee mboolem jaamu yàlla yi nga xam te ne ay farata lañ yu mag yi à part ak bi nga xamante ne moom la ñoo xajjul mabruur moom ñaan fayam aljanna la dégg nga aj bu baax mais boo xoolee yeneen yi ci des comme par exemple ci juróomi ponk l'islam yi amul benn boo xamante ne dañ naa la lii payam lii déedéet parce que payam xelu nit mënu ko xam mënu ko àttan moo tax mu ne koor maa ko moom maa koy fayal xam ko gis nga julli juróomi boo seetloo fu ñu lay waxee ne nangam am na ngëneel rek du julli du julli juróom yi julli juróom yi waxu doo gis xadis yu ci wax naan julli juróom yi ku ko def nangam lañ lay tabaxal ci àjjana wala nangam déedéet à part le rek ñu ne seen diggante li nga ci def ci bàkkaar dañ koy effacer à loolu waaw <laughs> imagine bi nga xamante ne digg dangaa julli tisbaar def bàkkaar dem julli tàkkusaan ci diggante boobu ñu effacé bàkkaar yi nga defoon ci ñaar diggante yi voilà fekk yaa ngi moytu ndeku nag kabaar bi bàkkaar yu mag yi mais soo xoolee kon hmm, koor tamit loolu lañ ci wax ñaari diggante ñaari àjjuma et cetera dégg comme niñ ko waxee woon yi ci jotaay yi weesu yaakaar naa waxoon nañ ci xadis boobu voilà dégg nga euh, euh, boo xoolee kon am na tamit maanaam koor comme fii ni nga xamante ne moom la xaalis bi wax ne man maa ko moom yéen borom subhaanahu wa taala man maa ko moom te maa koy fayal sama bopp loolu dañ koy faral di firi aaya bi nga xamante ne moom la wax ne innamaa yuwaffa saabiruuna ajrahum bi ghayri hisaab muñkat dañ leen di matalal seenu pay ci lu amul rek la cest à muñ gi ngay muñ muñ gi ngay muñ dafay waral ba liñ lay fay ëllëg yowmal xiyaamate maanaam du am àpp borom bi fa wa ta'aala dalay fay di la fay di la fay sans mu bi xëy xisaab ci la ak rek ak ceytu xool compter day fay day joxe rek cest à genre comme caisse noire lay doon amul dara comme caisse noire la mais loolu loolu soo xoolee loolu soo xoolee di nga comprendre. di nga comprendre que ni suñu xoolee ne ak ñaari xadis yi maanaam xadis bi ak aaya bi dañuy gis ne moo tax borom ko xamee di wax ne comme xadis bi ak aaya bi ñoo bokk li ñuy wax maanaam ne lii ku ko def dañ lay fay ci lu dul jeex te koor façon muñ la parce que le fait nga toog ne doo lekk doo naan ngir topp yàlla loolu la doo lay teg kon muñ googu ci ngay muñ ci topp ki topp loolu moom la yàllay fay en fait kon bu ñu ko xoolee le fait yàlla di fay koor di fay koor moom kese bu ñu ko seetloo dëgg-dëgg dinañ gis ne du jëmmi koor ji moom lañ fay mais li mu àndal la c'est-à-dire que le fait que nga topp yàlla ci muñ googu nga muñ ci topp yàlla la parce que koor dafa am benn affaire bu spéciale boo xamante ne yeneen jaamu yàlla yi amuñu ko mooy ne boo ko defee yàlla rek a tax voilà ce qui fait que maanaam <laughs> parce que à moins nga def ko fekk da nga da nekk nit ñi nu toute la journée wala yooyu mais sinon su soo dee da ngay wéet di kéew yooyu su fekkente ne vraiment bëgguloo woor et que nëbbatu nit ñi te di nga def li ngay def ko voilà donc caractéristique boobu noonu moo tax xadis bi yam ci koor caractéristique boobu mais sinon caractéristique boobu nit ki mën na ko cultiver ci mboolem jaamu yàlla yi muy def ce qui fait kooku ku mel noonu jaamu yàlla am bi day xisaab la ko yàlla fay du am parce que lan ndax sabru ala ta'a boobu ci nekk muñ goo comme la Alxuraan wax innama bi ghayri hisaab dégg nga muñ googu maanaam muñ ci gi nga xam ne moom la nit ki di muñ ci topp yàlla maanaam muñ gi nga xamante ne moom lay muñ rek te li tax mu koy def mooy yàllaa tax loolu la donc loolu bu ko yàllay fay du ko wutal ah du ko wutal compte du ko mën a compter du du ko compter voilà kenn voilà day joxe rek day joxe tax nit ki su eh, moo tax kii boobu ixlaas boobu am solo looloo tax ixlaas am solo am sellal boobu voilà day tax bu nit ki bu nekkee ci yoon maanaam ci yoonu yàlla di di jaamu yàlla euh, xam bi muy xam ne dafa war a def ngir yàllay kese ak di jëf jëf ji ngir yàllay kese séentuwu ci leneen maanaam defu ko ngir wut àdduna defu ko ngir wut àllaaxira defu ko ngir wut ay maqaama defu ko ngir wut ay fatxu defu ko ngir ay may yàlla ñëw ci moom wala yeneen déedéet da ko def rek ngir ne moom jaamu yàlla la te yàlla mooy boroomam mu xoole yàlla comme état mooy boroomam subhaanahu wa loolu day waral nit ni kooku euh, li muy am ci pay ci àllaaxira ci àllaaxira maanaam kooku même bu nekkee kooku bu nekkee àjjana maanaam li ñeneen ñi maanaam ñi nga xam te ñooy nitu àllaaxira yi maanaam nitu àjjana yi ñoom ay nitu parce attention am na gis nga nitu àjjana ak nitu yàlla duñ benn la am na différence entre yàlla ak nitu àjjana nitu àjjana dana dem àjjana mais bu fa nekkee day mel comme yeneen nit ñi maanaam day day day eh, maanaam li koy différencier ak ci suuf lenn rek la dund gi mu doon dund ci suuf lenn rek a ko différencier mooy dund gi mu doon dund ci suuf bànneex bi dafa limité woon ba pare dafa dafa dafa jaxasoo woon ak àdduna dafa jaxasoo woon nag maanaam euh, euh, ay naqar loolu moom mooy àdduna àdduna day am bànneex certes nit ki mais bànneex boo fi gis day ànd ak àddu day ànd ak naqar day ànd ak ay limite donc loolu moo ko wuti lekk bu àllaaxira mais sinon xéewal ya am àllaaxira yooyu en tant que nitu àjjana dañ ko koy jox mais en réalité du nekk ay xéewal yu maanaam euh, euh, euh, dañ ko yiir boroomam dañ ko yiir boroom subhaanahu wa taala ah c'est àjjuma bu ne nag boroom subhaanahu wa taala ko xéewal maanaam mu am rencontre boobu dégg nga comme comme àjjuma ni imam bi di xutba boroom bi da koy def tamit ah, di wax ak mbindeef yi àjjana maanaam di wax ak waa àjjana bu ko defee moom mu fekkee jamono jooju borom subhaanahu wa feeñu ko maanaam manifesté maanaam feeñu ko ci lu dëppoo rek ak moom maanaam ak niveau feeñu ko ci lu dëppoo rek ak niveau moom mais sinon bànneex yi muy am yëpp al àllaaxira àjjana mooy bànneex yu ndaw ndawaat yi maanaam mais ci àjjana quand même donc wuute ak fii voilà mais liñ jublu ci yu ndaw ndawaan yi mooy yi nga xamante ne. dafa aju rek comme ci nit ñi fii àdduna nitu àdduna yi bu ñuy bànneexu ci àdduna nit ñi bànneexu c'est-à-dire que lekk bu neex euh, soxna yu rafet kër gu rafet euh, naan gu neex noflaay euh, xet googu xet gu neex maanaam yi nga xam si ne daal dëgg-dëgg voilà ak jëmm yu rafet et cetera maanaam yi nga xamante ne daal yooyu mooy yi yi nga xam ne eh, bànneexu bakkanam daal moo ci moo ci aju mais li aju ci wàllu ruuxam maanaam li wa aju ci wàllu eh, digganteem ak boromam subhaanahu wa taala loolu parce que moom nitu àjjana la maanaam nitu àjjana la et que da doon liggéey da doon def pour àjjana donc sellal sellal gi dafa des seetlal na à un certain niveau maanaam mooy xam na ni lii kat dama koy def mais na naan lii su ma ko defee day tax ma am àjjana donc moom pour loolu la doon def yàlla nag su ko toppoon ci loolu comme ni ko waxee ci suñu kii hmm. ko toppoon ci loolu da koy mbugal su ko toppoon ci loolu da koy mbugal lu tax mu koy mbugal da koy mbugal parce que deful ngir mu yàlla. te yàlla daf ko digaloon ne ko jaamu ma man dama la bind pour nga jaamu ma man mais bindu ma la pour nga jaamu sa bànneexu bakkan et que xeetu wut àjjana googu jaamu jaamu bànneexu bakkan la mais comme que ñoom ñëpp yegguñu foofu niveau yi dafa wute parce que niveau boobu quand même tànneefu yàlla yi ñoo ko am maanaam xam ne ñoom ñooy niveau élite élite bi quoi donc yàlla du leen tenir rigueur ci loolu donc nit dafa am faiblesse yàlla du ko tenir rigueur ci loolu moo tax dina ko jox àjjana comme àjjana moo taxoon mu jëf ko eh, yàlla maanaam da ko koy da ko koy jox fay ko àjjana mais àjjana boobu muy dëkk moom li tax mu dëkk fa mooy eh, nitu yàlla yeneen yi nga xamante ne ñoom ñu sell lañ te sellal ngir yàlla dëkk gi ñu dëkk àjjana maanaam ñu bañ faa nekk ñoom kese maanaam ñiy wéttali leen gaa yi ci wéttali bi comme fii ci kaw suuf rek ci kaw suuf yàlla li tax mu bàyyi fii àdduna bi mooy nit ñi mooy jullit ñi ñiy wax laa ashhadu a laa ilaaha illallaah ñooñu wa oh, ashhadu anna muhammadan rasuulullaah ñooñu ñoo tax yàlla bàyyi leen fii ci suuf si àdduna bi ñooñu buñ demee ba amatuñu ci kaw suuf comme ni xadiis bi wax àdduna day tukki tout simplement mais yéeféer yi tamit ñu ngi fi boo dañuy dund di kii seen bànneexu bakkan ñu koy dab de temps en temps même bu dee dañu am naqar comme tout le di am ay voilà mais dañ fi nekk mais pour wéttali aussi pour peupler suuf si voilà wéttali parce que am nañ fi njariñ quand pour jullit ñi voilà am nañ fi njariñ pour jullit ñi ñu wéttali gaa yi aussi nekk fi ak ñoom euh, àjjana tamit noonu lay demee gaa yi nga xam ne ñoom fële ñoom àjjana rek la taxoon jóg ñoom nañ leen fa yóbbu. yàlla du leen mbugal du leen mbugal à leen di xañ li ëpp mooy boppam. boppam la leen di xañ ba mu des àjjuma àjjuma mu voilà mu ñëw ñoom kàddu nangam après ñu delluwaat ci yeneen nit ñi comme comme ñi nga xam ne nag ñoom ñooy aarif billaah yi nga xam te ñoom maanaam dañoo sellal seen diggante ak seen borom moom ixlaas ñooñu en fait fu ñu nekk dañuy nekk ak yàlla fu ñu nekk borom subhaanahu wa leen di wal boppam parce que seen bëtu xol moo koy gis parce que dañ koy jaam ngir dañu kon dañu muñ googu noonu maanaam baatu muñ gi ci ci voilà foofu la amee solo maanaam ci lañ lan doon wax noonu maanaam ixlaas googu le fait que ñu nekk di topp yàlla nekk ci ci ci yoonu yàlla donc loolu Hmm? moom mooy tax ba ah bu ñu demee àjjana tamit eh, mboolem ñeneen ñi ci des nga xam ne ñoom ay nitu àjjana lañ ay nitu àjjana lañ li ñuy am ci xeeti bànneex yépp ñoom ñoom ci diggante lu gën a tuuti xefe xippi lañ koy am bu ñu dajalee waa àjjana yépp li ñuy am ci bànneex ak ci ay xéewal ñoom ci diggante xefe xippi lañ ko yàlla defal c'est-à-dire que seen benn instant bu ñu dund moo ëpp doole waa àjjana yëpp bu ñuy dund àjjana voilà boole koog nag borom subhaanahu wa ta'aala da leen di wan boppam tout le temps ñoom duñ yàlla du leen yiir boppam comme waa àjjana waa àjjana vendredi ba vendredi la voilà y autre chose alors que ñoom tout temps voilà moo tax ñoom ñaar ci àjjana yi ñu nekk du bokkul ba tey. voilà bokkul ba tey comme safara yi ni ñu wuti safara bi nga xamante ne moom la yéefiir yi nga xam ne ñoom ñooy waa safara mooy asxaabu naari waa safara ñoom seen mbugal du jeex xam nga ñoom ñi seen mbugal di jeex mooy ñi nga xamante ne dañoo nekk safara te bokkuñu du ñu waa safara parce que loolu tamit am na am na ñoo xam ne ñu nekk safara mais duñu ñu waa safara c'est-à-dire dañ faa nekk pour en attendant ñu ñu ñu ñu ñu dindi mbugal mi daal maanaam ñun dindi li nga xamante ne moom mooy mbugg maanaam euh, seen bàkkaar yi doon def ak yooyu noonu muy jullit ñi jullit ñi mooy mooy waa ahlu tawhid ñi nga xamante ne ñoom euh, def nañ ñu bon nangam nangam euh, kii sauvéwu leen maanaam jéggalu leen donc kenn ràmmuwu leen euh, findaawuñ leen nangam maanaam lu ne xew na daal daal ba daal en tout cas finalement daal en de compte mooy waajale dem dañ koy dañ bàkkaar bi daal faw mu dem mu di débarrassé woo moom bala moo dugg biir àjjana voilà wala boog bii dafa takk lool lool lool mënta dugg àjjana nii ndax bakkan bi ni mu mel dafa takk tar mënta dugg àjjana nii faw ñu set raxas ko te raxas gi biir sawara la sawara lañ koy raxas euh, donc ah lañ <laughs> koy fóote waaw donc finalement mu dem àjj mu dem sawar benn moment mu dem sawar ok kooku dugg safara nekk gi muy nekk safara bokkut ak nekk gi yéefir bi di nekk safara benn instant bu ndaw bu bu yéefir bi nekk safara mu ëpp doole ñeneen ñi ci des ñëpp li ñuy mus ci li ñuy mos ci safara parce que safara moom bi bi di ne ak safara bi julli ji nekk duñ benn ba pare safara bi julli ñi nekk bon ñoom dañ fa nekk provisoirement ak dañuy génn dugg biir àjjana bokk ci waa àjjana ab benn ñoom demee dañuy bokk waa àjjana lañu bokk voilà alors que ñoom waa safara lañ voilà donc loolu moom mooy seen donc muñ muñ Euh, googu noonu li koy waral maanaam mooy nit ki bu fexee ba wala boog baatu bu fexee dafa inapproprié en fait mais bu ko yàlla wërsëgalee bu ko yàlla wërsëgalee muñ ak sellal gi nga xamante ne moo ne ci koor mu nekk ak moom tout le temps ci lépp loolu moom mooy yóbbu moo koy yóbbee mu nekk koo xamante ne fayam bi xëyri xisaab la duñ ko régler waaw donc loolu mu ëpp doole muñ mooy yàlla gi muñ mooy gi tamit moo ci tegu muñ mooy muñ mooy yàlla bañ a bañ def bàkkaar moo tegu ci degré bi parce que at taxal at la moo tax c'est-à-dire que xobbeeku xobbeeku ba pare dooga dooga ràngoo voilà maanaam denc ci jikko yu moy yu bon yi maanaam bàyyi yu bon yi après nga dooga ràngoo yu baax yi voilà donc parce que ràngoo lu baax du am lu dul ne dafa ànd ak d'abord denc lu bon denc denc lu bon voilà comme comme lu ne rek comme tabe tabe dafa ànd ak d'abord denc nay boo xësee ba denc nay ba pare parce que nit mën naa bañ a tabe ba pare du ba pare du nay aussi mu ne ci diggante bi tagatémbe mais bu fekkente ne dafa dafa dafa dafa dafa denc nay do dem nag tabe maanaam bu xësee ba tabe rek mooy denc na ci nay loolu exemple la voilà. bu xasee ba tabe mooy déjà dafa denc nay ba pare doogu ñëw tabe voilà lool la maanaam kon dangay denc jikko yu bon yi dooga dugg ci comme maanaam bu gëmee yàlla c'est parce que dafa denc d'abord ci kéefir denc na ci kéefir ba pare dooga ñëw gëm voilà donc yooyu su fekkente ne nit ki dafa meloon noonu maanaam kon topp bi muñ ci topp mu ëpp doole mu ëpp doole muñ ci moy mais loolu tamit dafa relatif cest à loolu mooy de manière globale loolu mooy de manière globale mais ndax boo xoolee euh, tuuti boo xoolee euh, cas par cas parfois parfois dañ ci maanaam muñ mooy muy gën a metti que maanaam muñ topp voilà léeg nga gis comme benn mbayeen boo xamante ne boolu ganaar gaa ngi nii mu bañ muumu ko mu bañ cee mu bañ cee jël benn bi mooy gën a jafe ci moom que mu toog fii julli junni ràkka bu taxawoon tey julli junni ràkka muñ googu muy muñ du dara ci moom par rapport tey bu ñu tegoon fii boolu ganaar te mu leer ko ne moomu ko waaye mu xool gisul kenn tentation boobu mu wàññee jël dara moo gën a jafe <laughs> hein voilà donc ça arrive donc affaire bi dafa relatif voilà dafa relatif ci buntu boobu kon loolu mooy muñ ci diggante muñ ci topp ak muñ ci mooy Hmm? ak ak ak mu nekk fondement yoon bi voilà fondement yoon bi kon mooy sellal boobu ngay sellal ci muñ gi ngay muñ léegi mu ne euh, wa sabrun am na beneen muñ kon ñaar yi mu tudd mooy muñ ci topp muñ sabru taa ak muñu wëllif mooy mooy sabru anil ma'siya mu ne wa sabrun am na tamit beneen muñ am na muñ ala fuduli ci mboo moo nag mboo sóoru adduniyaayu àdduna mooy mooy yi nga xamante ne taxu ko am solo waaw <laughs> ah, àdduna yi fi àdduna yi nga xamante ne dafa ñàkk solo maanaam nga muñ ci woo woote loolu moom la tudd moom lañu tuddee az-zuhd mooy dëddu àdduna kon yii nga xamante ne ay mbóosóor la maanaam nga xamante ne tax boo bari solo lool ci àdduna euh, nga muñ ci maanaam mooy bañ koo préoccupé woo mu bañ a nekk sa yitte nga bañ fee nekk tout le temps mooy comme nii rek oh yére bi rafet na su dal yi rafet na su kal ca moom nii maanaam ne yëpp futilité yooyu ay ay wuy match bi nangam nangam am di nga gis obsession boobu gars di am ci match yi ci seetaan film ak xeet yooyu yëpp <laughs> nga xam ne yëpp caaxaan la daanaka tax ko maanaam amul daanaka njariñ amul daanaka maanaam boo doon xool daanaka amul benn njariñ maanaam ni nga xamante ne noonu la ci gars yi di amee obsession noonu maanaam jàpp ne nag di gis hmm, voilà waxuma laa nag ñuy dem ba stade ba moom di di di di mu jaral leen saa di tëb. ak dalu dégg nga dégg taxaw quatre-vingt-dix quatre-vingt-dix yoo xamante ne dañ ciy boole minutes yi ngay ñëw balaa match bi tàmbali ah? ak buuxante bi ah? wala boog noonu noonu nga xam ne noonu la gars yi di nekk maanaam ak yeneen ak yeneen yi nga xamante ne yëpp ay mbuusóor la ci wàllu maanaam yu amul solo amul dara fudul googu mooy mooy fudul mooy loolu mooy loo xam ne vraiment tamu ko amul benn solo amul njariñ caaxa voilà caaxaane neen la yooyu nga xamante ne moom la ci la gaay di nekk ak toog saa di war a débat yoo xamante ne saa waay taal ko tax ko maanaam maanaam wax cee ñàkk cee wax yam wala boo xam ko ñàkk koo xam daanaka ñoo yam ndax bariwul njariñ voilà. Hmm? Hmm? voilà euh, euh, joueur sangam moo ko football jour sangam gars yi commencé di ci werante ñenn ñi sax commencé voilà et cetera mais yooyu nga xam ne amuñu benn njariñ. nga nga muñ ci yooyu maanaam donc détourné wu ci loolu la ñuy tuddee az-zuhd mooy dëddu àdduna voilà loolu mais ba loolu benn cadre la ci zuhd voilà benn cadre la ci dëddu àdduna mais boobu boobu boobu nag moo gën a tuuti moo gën a tuuti ñaari yàlla ñu njëkk yi voilà mais comme li ñu wax rek dafa relatif parfois nga gis koo xamante ne ñaari yee xëy na tax koo am problème ci yooyu mais fii moom daf ci am problème dëgg voilà voilà da ngay gis koo xamante ne voilà xam nga ni loolu dafa dafa dafa kiiwul sax nga gis koo xamante ne day eh, eh, eh, dégg yor course am jàkkaarloo match bi. tey hmm. waay waay waay waay ñu xamul dara waay waay ah. wala waa ji ah, na bal bi sàngara waay wala ah. wala ñu gis ñu comme li ñu daloon ndeysaan benn wàcce kaamil bu ñu demoon. <laughs> suñ kari du sax moom mo attiré sama attention ci lool lamb dafa la wol lamb bu fekk nag mais ñi doon séddale kaamil ñi doon séddale kaamil mais timis gi dafa doon jot mais julli wuñ parce que lamb gi lañu wara a té ñu ñoo doon séddale kaamil yi ak ak mais sa bo bar da ngay dañ ci dem bi rek bo gisé ñu jang da ngay xam ne ñii ay jàngkat alxuraan dëkk bi mais waaw mais mais mais mais match mais kii bi làmb yi non déjà le seul fait que ñu intéressé wu ba xam ne am na loolu rek déjà benn affaire benn xeetu mbuur mbóosóor la benn xeetu dugg ci ay ay caaxaan yoo xam ne amul solo waxuma laa nag waxuma <laughs> waxuma laa nag di ko xaar di ko kap di ko di ko di ko góolu quoi di góolu làmb bi nga xamante ne saa après nga gis mais même même ki même même euh, xam nga boobu man dégguma seen làkk yooyu après nag mais maa ngi gis même paa yi sax paa yi nga gis commencé ak seen sax ba door yi course yooyu d'ailleurs mais nga gis ñu nekk ci di di di di di di kii quoi di di <laughs> eh, di di commenter làmb gi sax di ko kii kenn ku ci <laughs> nekk ba nga gis nga. seen kàddu yi commencé jóg nga gis ne xeetu werante bu xaw a tàng quoi te li ci yéeme woon li ci paradoxal mooy ne ñun jeunes yi ñun ñoo nekkoon ah, ñun fi ñu nekkoon ñun duñu en fait ni ñu toogee duñu doonuñu woon gis télé bi doonuñu woon gis mais paa yi ñoom ñu toogee ñoom ñoo jàkkaarloo rek télé te li ci yéeme mooy <laughs> paa yi paa yi nga gis. ñuy ñuy ñuy kii quoi ñuy maanaam ñu après ñu ciy werante ñun bon ñun ñu ngi woon côté benn di waxtaan ci suñu yeneen affaire voilà ay yëguñu sax ne ma waa ja affaire baa ngi am mais loolu moo même temps voilà muy voilà waaw la da nga gis ñoo xam ne pourtant pareil da leen jaraloon ñu ngi def déplacement kii nangam ñëw pour wàcce kaamil bi nangam est voilà nga gis ne dégg nga sol seen seen kii mbaxane yi koppati yi ak ak ak ak ak garabu bu yeeg yooyu yëpp ñëw nga gis eh, ni ñu gis kurus gaa ngi seen loxo mais nga gis ñuy commentaire ñuy commentaire bëre bi làmb gi waaw <laughs> ay kii def ko nii làmb gi am na kay nee nañ diw daan na nga gis ñuy commencé di continuer werante ci affaire boobu waaw <laughs> <laughs> voilà maanaam ngay gis kon paradoxe kii boobu parfois da gis koo xamante ne maanaam pourtant topp gi nga xamante ne di topp yàlla la maanaam pourtant ñoom ñu toog di ko def mu leen gënoon yomb que ñu <coughs> muñ par rapport ak di toog seetaan masal masalan làmb ko nga xam ne ay mbóoratër ak mbóosóor la caaxaan la voilà maanaam nga gis paradoxe kii boobu paradoxe boobu mais loolu benn xeet la ci muñ tamit mais boobu <coughs> boobu moo tegu boobu mooy muñ parce que en fait li tax yii jafe lu tax yii gën a jafe yeneen muñ yi mooy bii nii yii nii bu njëkk xolal yu njëkk yi gën a fréquent moo tax le fait que tout le temps nga war cee ne dafa fréquent donc ñoom ñoo gën a jafe ba pare si li mu laaj ci sellal yu mujj yi laajuñu ko maanaam comme tey par exemple bàyyi mooy yàlla euh, li topp yàlla di laaj ci sellal bàyyi yàlla laaju ko ci li topp yàlla di ci sellal ak ci def ngir yàlla rek ak di teewlu borom bi subhaanahu wa taala bàyyi mooy yàlla laaju ko maanaam bàyyi mooy yàlla dana ko laaj léeg-léeg mais laaju ko noonu comme par exemple tey sàcc bu fekkente ne man du ma sàcc aw ma tentation sàcc je suis à l'abri parce que am naa moyen yi tax du ma sàcc voilà donc man sàcc du du sama kii du sama problème en tant que tel problème en tant que tel donc euh, saraxe saraxe li mu laaj maanaam ci sellal ak ñu def ngir yàlla ak tamit maanaam noot saa bakkan pour mu mën a saraxe loolu li mu laaj bàyyi sàcc laaju ko bàyyi sàcc moom bàyyi la rek te d'ailleurs bàyyi sàcc il faut occasion bi wu bu baax baax baax ba nga xam ne risqué wu mu ci dara ma dogg am tentation bi te même tentation boobu ma ko amee léegi day gaaw a dañaat parce que damay wax ne bon lii baaxul rek après ma daan dem parce que xaw ma ko aussi alors que topp gi dama cay war di nekk maintenant loolu tamit dafa relatif maanaam nit ki benn bàkkaar bu mu tàmm bu mu tàmm bàyyi ko mooy gën a jafe mën na toog fii di def junni ràkkaa guddi gi mais bu fekkente ne dafa tàmm euh, euh, par exemple boîte de nuit mën na julli junni ràkkaa ba pare sol dàllam dem bu fajar gi jotee mu ñibbi si julli fajar gi te pourtant parce que daa taamul la et cetera yàlla na yàlla sàmm mais de manière globale quand bàyyi de topp yàlla li mu laaj ci muñ ak sellal ak noot sa bakkan bàyyi mooy yàlla laaju ko ni ki loolu bàyyi ngóosóoru àdduna yi tamit laajul loolu laajul lu ni toll lu tolloog loolu pour mën a bàyyi mooy yàlla yi parce que il suffit que nga bañ ci intéressé wu rek comme tey par exemple man su fekkente ne ay làmb ak yooyu yëpp intéressé wu ma maanaam fexe daa intéressé wu ma parce que damay occupé wu ci nekk ci yu ëpp solo mais du ma am tentation bi jamais mais jamais alors du mukk ay film bi nangam nangam xaw ma sax ne film bi existé na. parce que du ma intéressé bu ñuy seetaan journal sax ba mu yegg si ci heure bu naan film yi commencé na bon ma ma zappé ne bon li amoon solo ci journal bi jeex na jeex na du tànte wulul naan naa dem cinéma di seetaan ay film bii doo génn hmm? waxuma laa toog film yi nga xam ne day def ay 6 heures de temps comme ay ñoom le Seigneur des Anneaux wala ko bon ah, ah voilà voilà moo toog six heures de temps ma toog ko seetaan benn film kese te ci loo xamante ne daanaka amul solo man bon seetaan wu mais xam naa ne amul solo ndax dégguma ci ñu wax ci lu am solo voilà ay Isawara ay ñoom mu tudd ndaw si marimat naka marimat ak am na keneen ki mademoiselle ak ñoom waaw ay bizarre yooyu ñooñu hmm, amuñu solo amul njariñ xaw ma ah, ay ay ay espagnol lañ xaw ma ay ay brésilien lañ xaw ma luñ doon mais tam ko am solo hmm. li ñuy li ñuy seen seen. et puis voilà donc yooyu ak yeneen ak yeneen maanaam yooyu mais yooyu nga bañ ci intéressé wu il suffit que rek déjà sax doo am amoo jot bi rek jeex na bokkul ak li kon li mu laaj ci sacrifice la la laaju ko maanaam euh, mooy bàyyi mooy yàlla moo ko ëpp ëpp li mu ko laaj voilà topp léegi noonu léegi loolu beneen beneen kii la Hmm? dégg nga léegi mu am nag beneen mooy wax sabrun ak muñ alal masaa'ib bi ci musiba yi nag wal mi xane ak nattu yi boobu tam beneen façon la par contre bii moo gën a metti mais li tax yële ëpp ko doole mooy que ni bii yii dañoo ponctuel rek maanaam nit ki du def saa su nekk muy am ay muy am ay naqar yu koy dal wala yu metti yu koy dal ak yooyu déedéet même bu dee am na benn affaire bu metti bu ko dal affaire boobu noonu le fait que muy yàgg nekk benn affaire kese day dem ba moom mu miin ko ba kanam miin ko donc metti gi door ko tax demee de noonu ko maanaam du metti comme au début maanaam bu la benn affaire dee doo dal ni ni muy mettee bokkut ak bu demee ba nga xam te léegi miin nga ko yàgg loolu tax xadis bi ne as-sabru inda sadmatil ula voilà ne muñ moom mooy mi ngi ci dóor bu njëkk bi maanaam buy doog a yegsi foofu li ngay réagir loolu la ñu tuddee muñ mais doo toog kaas ba pare wax a wax a wax jàmbat nekk lii lu ne nga def wax ko ba noppi doo gën a ko nag daal ne bon naa muñ rek naa muñ rek loolu tuddul muñ. léegi kon euh, bii moo gën a metti mais mais dafa ponctuel voilà dafa ponctuel euh, mais yeneen yi ci des kon ci kaw loolu yeneen yi ci des ñoom ñoo ko gën a euh, ñoo ko gën a naqare sàmmonteel dégg nga bii nag woo woote moom mooy asaasu maanaam cëslaay maanaam fondement wu ar-ridaa ngërëm maanaam mooy gërëm lu yépp lu yàlla dogal wa taslim ak woomatu lillaahi yàlla na mag sell nga wa ta'ala ajika wa husnu ak rafet njort bi ci moom kon bii moom mooy fondement wu di gërëm maanaam di agréer ne satisfaire ci lu yàlla dogal ak di woomatu ci yàlla boobu subhaanahu wa ak rafet njort ci moom woowu woote bii ashaq mooy bi gën a xat moy bi gëna metti ci al anwaa xeeti xéti euh, maanaam muñ yi ala nafsi ci bakkan bi moom moy façon bi gëna metti ci bakkan bi façon wala moy comme li ñu wax do mo gëna metti mais mais dafa ponctuel wala ça à dire que dalay dal rek mu jeex waaw donc il faut que tout le temps té lool moo loolu bokk na ci li tax mu metti moy le fait que du tout temps lay dalaté ba pare du tout temps maanaam do doo ko tàmm day fekk tàmmoo ko mu daal di ñëw mais mën na mën nga dem ba ba ba tàmm ko maanaam bu yàggee bu fekkente ne natt bi yëkkatikuwul rek da ngay dem ba ba miin ko waa xasdul abdi cërug jaam bi nag min hadal ismi ci bile tur mooy maanaam saburu léegi nag jaam bi naka la koy incarné <coughs> mu ne moom mooy as sabru mooy muñ alal anwaay ci xeet al arbaate yi ñeent yi wal mu daawar mate ak saxoo ala ala dalika ci kon nga muñ ci ñeent euh, xeeti muñ yi ba pare nga sax ci hmm? nga sax ci kon noonu moom lañuy incarné as-sabur voilà ñeent façon muñ yi nga xam ne moom lañ tudd wax na abu bakar al warraq rahimahullahu taala raxamoo yàlla na yërëm ko allah bur yàlla taalaa ji kaw ji nee na ixfaz sàmmonteel ak as-sidqa dëggu fii maa ci li nga xam lépp loo xam ne bay naka nekk sa diggante woo na laay ak yàlla sa diggante ak yàlla war rifqa ak woyofal ak yombal fii maa ci lépp loo xam ne bay naka nekk na sa diggante woo xalqi ak nit ñi ak sa diggante nit sa digg ak mbindeef yi bokk wa sabra ak muñ fii maa ci lépp loo xam ne bay naka nekk na sa diggante wa bayna nafsi ak sa bopp si sa bopp fa hada lii huwa mooy alladi li nga xam ne yufiidu dana jariñ ak najaati mucc dana jariñ ak mucc maanaam dana tax dana indi mucc waaw dana indi mucc voilà kon dangay sàmmoonteeg dëggu sa digganteeg yàlla mooy sincérité bi nga sàmmoonteeg ar rifq moom mooy eh, eh, di jëf tout le temps doxalin bu baax lu rafet dégg nga morfe mooy comme voilà ci sa diggante ak mbindeef yi maanaam diggante nit ñi ak yeneen même mbindeef yi rek ak tamit ngay muñ sa diggante ak sa bopp maanaam lépp lu ñëw rek ci sa maanaam sa bakkan nga koy tàmmal muy muñ sa bakkan nga koy tàmmal muy muñ lii moom mooy waral ak mucc léegi muy dugg ci benen tour mom moy mooy arrahim ndax na ya ghafur ya shakur ya halim ya karim ya sabur ya rahim mu mana mana maanaa arrahimu mooy ki yaatu yërmande aji way huwa moy al alxaafiru aji jegal li jamii zunubi ñeel mbolem bakkar fil aaxirat ci àllaaxira ma ada ba mu dess ashirk shirk bokal qala na abdullahi ibnu mubaarak rahimahullah nee na maana raximu maana arraximu aji kii yërmande wo alladhi mooy gamne iza lam iza saa xam te lam yusal laajuñu ko rek xadd ba day mer suñ ko lajul day mer wa an solo nañ ci abu hurayrata abu hurayrata radiyallahu taala anhu wardahu anna bihi anna nabiyyi nag yenente sallallahu alayhi wa sallam qala nee man képp ko xamne lam yusal laajul allah bur yàlla yardab day mer alayhi ci moom maanaam man lam yas'alillah yardab alayhi war na ba ma way na nose na ci way hada xadis bi la xadis man qaala nga xam ne wax na ne allah bur yàlla allahu yardubu in tarakta su'alahu wa bani aadama xiina yasalu xiina yasalu yardubu voilà voilà ne allahu yaxdabu in tarakta su'aalahu wa bani aadama xiina yasalu yaxdabu yàlla moom day boo bàyyee laaj gi nga koy laaj in allahu yàlla yaxdabu day mer in tarakta ndem baa nga su'aalahu laaj ko wa bani aadama doomu aadama yi na xiina yasalu xiina yasalu suñ ko laajee yaxdabu day mer maanaam loolu mooy gis nga contraire yàlla ak doomu aadama mais en fait euh, raxim gi ni mu ko Euh, waxe maanaam euh, prix bi dafa dafa dafa dafa dafa dafa restreint dafa limité dafa dafa limité comme ni ko waxee woon loolu yaakaar naa jotoon nañ ko leeral ci jotaay yële yeeweesu ci maanaa rahim ne mooy ci yaatu yërmande maanaam fa'il la bu tuggee ci bu jógee ci rahma maanaam ne yërëm yërmandem bu yaatu ñi nga xam te ne moom la baree lu muy yërmal ak ñu muy yërëm ak yërmandeem tamit ni mu làmb yi ñëpp ah ci maanaam doxal gi nga xamante ne moom lay doxale ak jaam yi subhaanahu wa taala kon noonu loolu maanaam yërmande googu loolu moom mooy raxim voilà maanaam mooy ki nga xamante ne mooy yërëmaate voilà mooy yërëmaate mhm. voilà waaw euh, ak li ci aju woon loolu am na développement yi ñu ci jotoon def ci jotaay yi weesu walillahi alhamdu wal minna léegi qaala wax na ash-Shanaawi fii sharh al-Jawaahir ci nga xam ne moom lañ sharh al-Jawaahir xamsa mu ne yusalli dana julli az-zaakir aji tudd gi si karkat bi baram ki nga xam ne mooy jàng xel mu say fii fii haaza al-mahall ci biir la bërëb rakaateen ñaari rakaat voilà sharh maanaam place bi su si yegsee mën na def loolu loolu bokk na ci ñi ñuy jariñoo ci xel say fii maanaam nga jàng ña nga julli ñaari rakka yaqra'u boo xam ne dana jàng ba'da faatihatul kitaab ginnaaw faatihatul kitaab suuratu ci waxam bi borom subhaanahu wa ta'aala ne salaamun qawlan min rabbir rahiim muy aaya 58 suuratu yaasin rakka muru ko suma topp rakka atayni ñaari rakka yoo xam ne bi tamaami suurati day mottali saar bi yëpp day jàng saar bi yëpp ba mat kon ñeenti rakkaa doon ñaaru njëkk yi dégg day jàng ba ci salaam faatiha ba salaam xam nga ñaaru yi ci des nag nag yu mujj yi kon yaqra'u mu daal jàng yaa qayyumu yaa aliyu yaa azimu yaa kabiru yaa mitmaam wala mutammim hmm? yaa fattaaxu kër gi nay faral di ànd ak waaw waaw mais waaw lay gën a nuur waaw mutammim lay gën a nuur parce que bu doon mutaalu yaa yaakaar naa benn xaraf moom moy ki mais fi ñaari xaraf la ah te alif la dum dugg ci ci diggante bi. yaa mutammimu lay jëloon. yaa ni ya fatah ya razzaq mais après ñu ah mi lol fo nga dum ci sarh jawhar jawhar jawhar xam sa bon léegi dinaa dinaa dinaa dinaa jéem a xool boo xam ne dinaa ci am. lu gën a lu gën a lu gën a leer insha allah mais ñu jàpp yaa ma tamit dégg nga gis nga lii mooy problème mu kii tamit édition bu baaxul moom voilà yaa qayyuumu yaa aliyu yaa azimu yaa kabiru yaa mutammimu yaa fattaxu yaa razaqu ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك wa anta xayrul raziqina maanaam loolu lay jàng maanaam à part de rabbana bi nag ba ba wa anta ay loolu daf koy jàng maratan benn yoon après yaqulu mu wax ne subhaanal mufarriju an kulli mahzunin subhaanal munaf munaffis عن كل مسجون سبحان الميسر لكل مديون يا من جعل خزائنه بين الكاف والنون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وله ترجعون موي جهه صوت ياسين يا خفي الالطاف بحق سوره الاعراف ادركني في وقت هذا ونجني مما اخاف يا مفرج فرج يا فارج الهم يا كاشف الغم يا دليل المتحيرين ويا مجيب دعوة المضطرين فرج همنا واكشف غمنا وأهلك عدونا اللهم شتت شملهم اللهم شتت شملهم وخرب بنيانهم وبدل أحوالهم وفرق جمعهم وقلب تدبيرهم ونكس أعلامهم وذلل أقدامهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم بحق هذه الأسرار وبحق كرمك الخفي وبحق اسمك الأعظم أسألك أن تقضي أن تقضي حاجتي كلها يا من أمره إذا أراد أن إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون maanaam yooyu loolu lay wax voilà maanaam kon place bi def na hmm, def na fi wax def na fi def jëf ji waaw maanaam après boo ko defee par da ngay mottali say fiw mais euh, <coughs> euh, voilà ngir fajub aajo waaw ngir fajub aajo ak ubbeeku ak tamit maanaam euh, aar ci ay noon ak yu mel noonu ala xaal maanaa maanaa maanaa li ñuy jang ak euh, ñaan gi daf koy da koy tegtale comme ni nga xam wala kon manam dañuy julli ñaar ha ginnaw faatiha jang sóotu yasin ba ci salaamun xawlan rabbir rahim après nga roko après nga def ñaar na ñaar rakka yo xamantene da ngay jang faatiha ak sóotu yasin ba mat ginnaaw gi na nga jàng yaa qayyuumu yow mi nga xam ne yow yaay taxawu mboole mbindeef taxaw sa bopp taxaw mboole mbindeef yaa ali yow mu màgg mi yaa azim yow mu yëkkati mi yaa azim yow mu euh, màgg ya wala mu euh, yaa kabir yow mu màgg mi yaa mu tam mi yow mi mottali yaa ka ah yaa fattaaxu yow mi nga xam ne yow yaay aji ubbi waa koor mi yaa razaq yow mi nga xam ne yow yaay wërsëgalaate rabbanaa yow suñu borom anzil wàcceel naa ci ñun maa'idatan ak euh, maa'ida mooy taabal minas samaa'i bu tukkee ci asamaan takkuwul boo xam ne dana nekk la naa ñeel ñu iidan iidan euh, mooy xew-xew mooy fi fet fet li awwali naa ñeel ñu njëkk suñu wa aaxira naa ak ñu mujj suñu maanaam ñu njëkk ci ñun ak ñu mujj ñi wa aayatan mu nekk màndar kéemaan boo xamante ne mi ngi ko bu tukkee ci yow mandarga bu ñuy wan ne ah yow kat yaa yàlla yow yén voilà et cetera war ak sàkk xéewal nangam nangam war sox naa nga wërsëgal nu wante te yow xayru raazix ñu yaay koy gën di wërsëgalaate boo xam ni wow ñaan la bu Seydina Isaa alayhi salaam a defa ndax léegi loolu bu ko waxee ba pare lii après day wax day wax subhaana gàcce ngàllaama almufarriju ki nga xamante ne moom mooy wuññi an kulli mahzulin wëllif képp koo xamante ne ku ñu tiisal nga maanaam ku am tiis rek yow yaay yëkkati tiisam subhaana tudd na mag sell nga gàcc ngàllaama almunaffisu ki nga xam ne mooy jox nooyi an kulli mahzulin wëllif képp koo xam ne ku ñu tëj na moo koy wutal buntu bu mu génne subhaana tudd na mag sell nga gàcc nga laama al muyassiru ki nga xam ne moom mooy aji yombal li kulli mat yu ni képp koo xamante ne dafa bari ay bor moo ko yombala yaa man yow yow buur yàlla yow mi nga xamante ne jaala def nga xasaa inahu eh, yow mi nga xam ne yow yaay ki nga xam ne dafa def xasaa inahu ay màndaxe maanaam ay trésor am bay na diggante alkaaf wan nuun ak nuun diggante kaaf ak nuun mooy ci kun gi loo ko waxe innama li am res mooy amruhu mbirum moom yàlla iza araada bu nammee shay'an dara an yaqulu lahu mooy dafay wax mbir moom rek kun nekkal fa yakun loola nekk fa subhaana tudd naa ki nga xam ne nekk na ci loxoom moom dong malakuuta moo meel gu yaatu kulli shay'in bi mi nga xam te ni yow yaay kii nëbbul al ay sew sew bi xaqi maa ngi lay ñaan ci ba àqi ci barke suuratul A'raaf sootu Araf adrik nii yàlla nga dabaatal ma fii wax samay waxtu ha sama waxtu hada bii wa najjini te nga musal ma mimma ci lépp loo xam ne axaafu ragal naa yaa mu farrija nga xamante ne yaa aji fa fa aji faja fajal aajo ñi di leen wuññil seen problème yi yaa xam yow mi farri farri farri yàlla nga fajal ñu yaa faarijal xam yow mi nga xam ne yaay wuññi ak maanaam yitt yi maanaam yi nga xamante ne dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa yittewul nit ñi dafa yitteel nit ñi wayaakaas fa yow nga xam ne yow yaay wuñ ñi dindi yëkkati alxam ak njàqare wayaa dalila yow mi nga xam ne yow yaay tegtal almutaxayirina ñi nga xam ne dañoo gëlëm wayaa mujiba yow mi nga xam ne yow yaay aji nangu daawatan ñaanu almutarrina ñi nga xam te ne dañoo loru farrij yàlla nga fajal yàlla nga yëkkati hammanaa suñu yitte yi maanaam suñu problème yi waqshif yàlla nga yëkkati nag ghammanaa li nga xam ne moom mooy suñu njàqare wa ahlik yàlla nga alak aduwanaa suñu noonu allahumma yóbbul yàlla shattit yàlla nga rajaxe transaare shamloo seen mbooloo wa xarrij yàlla nga euh, Euh, euh, euh, gental gental bunyaanahum seen dëkkuwaay seen tabax ya wa baddil te yàlla nga wecci nga soppi ahwaalahum seen xaal ya wa farriq yàlla nga tàqale jam'ahum seen mbooloo la wa qallib yàlla nga jàllar bi tadbiirahum seenu soppandiku wa nakkis yàlla nga njett a'laamahum seenu seen ya ñuy ràññee maanaam yi nga xam te ne moom la ñuy kii nga wëlbatiku li nga xam ne mooy seen symbole yi wa zallil yàlla nga euh, tarxiisloo aqdaamahum seen tànk seen ndëggu tànk yi wa xushum te yàlla nga téye leen axda azizin téye nga xamante ne moom mooy aji am doole ji ah am nooteel boroom noot ki noot ci nguuram muqtadir nga xam ne dafa jiggi daye ci am kàttan di nattale mbir yi allahuma yow buur yàlla mi ci tur rafet yi melu yëkkati kii bi xaq maa ngay ñaan ci àq hadir asrar yi li bóot secret yi wa bi xaq ak ci àq karamika say te sag teranga alxafi bi nga xam te ne mooy aji làqu aji nëbbu gi wa bi xaq ak ci àq ismika sa tur al azam bi màgg bi bën bu gën baa naan as'aluka maa ngi lay ñaan yow buur yàlla an taqdiya ca nga faj xaajat yi sama aajo kullaha yépp yaa man yow mi nga xamante ne am mbiram yépp isa araada bu nammee rek mooy mbir bu nammee shay an dara an yàqula dafay wax rek la woon yel mbir moom ak kun nekkal yow fayakul mu nekk voilà kon loolu moom moom foofu la yam beneen yoone ñu dugg ci beneen euh, wax mooy allahumma inni ahmaduka wa antal mahmud fii la cant yi tàmbalee nag euh, mu nekk lu yéeme yéeme subhaana rabbi insha allah comme ni nga xamante ne noonu lañ koy gisee mais lu yéeme yéeme la ci xeetu ni ñu muy sante yàlla mm-hmm. wallahi maanaam gis sant yàlla maanaam ni ni Hizbu Sayf yi maanaam ni ñuy sant yàlla ak maanaa yi ndax ni mu ko làmboole mais ni mu dajaloo ci Hizbu Sayf yi daanaka mën naa wax ne néewan na wala pour bañ a wax amul mais dañ na néewan na fu mu dajaloo feneen voilà néewan na fu mu dajaloo feneen mais ñu ngi wax insha Allah jotaay bi di ñëw ñu dugg ci domaine boobu.